barakaatu noo ngi dellu di amaat jataay jataayub xam-xam jataayub fàttaliku jataayub yokku mu jëm ci luy mottali liggéey bi rek di ko gën a teg ci yoon tey nag jataay bi dañ ko am sunu sëriñ mu jëm ci bunt boo xam ne itam nun ñépp noo ko yittewoo te mooy makaanatu sunnati fi islaam sunna sayidna muhammad alayhi salaatu wassalaam am ruuteem san solo la am ci lislaam mu doon loo xam ne xam ko du mën a ñàkk lu ko mooy ponk bi ñuy tuddee al ixsaan ci diine dañuy manqué ndax ixsaan te muy rafetal la ko ngànk mooy jëf ji tegu ci ndigal dañu defe ko itam ni nga xam ne noonu la ko sayidna muhammad daan defee te loolu mooy li ëpp solo ci li ñuy xamee ci sunna ak yeneen njariñ yenn ca biir nag yépp ki nga xam ne itam moom la sëqal jataay bi tey mu war noo fàttali xamal nu dàgginu jombul xañ na ñu bari ci yéen xam nañ ko wala ñu dégg aw waaye bu fekkoon ne dañ leen ko bëgg a xamal te dunu xëtt ay ndigalam moom ci boppam dan naan sunu magum daara la taalibu ilm la boo xam ne xam nañ ko ci waar wi ba tax na mu ñemeloonu waar wi xanaa di ko ñaanal nag yàlla yàggal ko ci sunu kanam euh, jataay bi mu nar a séq ak ñun nag doonut ne ay jéegoom ci waar wi ci la yem ndax bindkat la itam am na ay téere yoo xam ne taalif na ko téere yooya jombul yi ngeen ci xam duma ko tudd waaye yi ngeen xamut dina am lu ma ci tudd bokk na ci alkutubu sitta manahijuha wa juhudul ulamai fi xidmatiha juróom benn téere yooyu nga xam ne ci la ñuy tabbee xadiis yi yonent bi sallallahu wasallam di ko fa jànge def na ci ab téere di leeral seenu tëraliin ak gëstu yi ci boroom xam-xam yi def ngir yombal ko jegeel ko xeet wi bokk na ca alwasyu raqim fi taaliq ala nahji alqawim nahji alqawim téere fiq la bu ñu xam ci réew mi ki ko taalif di boroom xam-xam bu ma ki def na ci ay gëstu ndax beqi na ko joxoñ ko def ci ay leeral yoo xam ne day mottali téere ba di ko gën a taaral sharxul muqaddimatil kokkiya fi naxw muqaddima boobu nga xam ne boroom xam-xam bu ñuy wax Mor Xujja Kumba Jóob moo ko def tey maam ci kilifa gi toog ci sunu kanam mu doon ay way moom téere bi am na saraabum ciy def ci wàllu naxw ak yeneen yoo xam ne xañ na teewlootuma ko waaye daal duma def lu jox ko kàddu gi ngir ñu jéem a taatan li nga xam ne moom lañu doon néggandiku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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بهذا الموضوع وان يكتب لنا ولكم الاجر والثواب إنه سميع مجيب إن الموضوع الذي نريد الحديث عنه في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله هو السنة النبوية ومكانتها في الإسلام وتتلخص عناصره في الآتي أولا مفردات الموضوع ثانيا الحاجة إلى السنة النبوية وعلومها ثالثا منزلة السنة النبوية من الأحكام الشرعية رابعا المعوقات العلمية والعملية عن معرفة السنة وتطبيقها mbokk yi fi teew ci ay góor ak i jigéen ak i bag ak i ndaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi sant mbokk yi amal daje bii nga xam ne baaxoo nañ at mu nekk ñi amal ko muy li jëm ci jàng ak jàngale yaru ak yare te buñ ko defee danañ nu ci jox ab cër ndax xëy na yéene nu ci tuyaaba ji nga xam ne nit ñaa ngi fi daje di ko raas di ko wat ñu bëgg ma am ca cër loolu moo ko waral waaye at mu nekkit ñu di ko doxale ci anam goo xam ne aw tëriin wu tegu ci yoon la ci lu jëm ci wàllu jàngale ci boppam ak lu jëm ci wàllu dajale nit ñi ñuy seet ay tomb ci seen diine di ko waxtaane di ko jot li ca làkk wañ dégg ba nit ña mën caa jariñu waaye nag at mu ne ñu tooñ ma ndax dañuy tànn waxtaan woo xam ne ci wàllu xam-xam day xóot lool xam nga ne waxtaan woo xam ne day dugg ca lañuy ñuy tudde usul wala lu ko jege lool nga dajale ko xëy na lu bari ca mbooloo ma sax boroomi xam-xam lañ ak ndongo yu sàkku xam-xam waaye nga bëgg ko ko toxalloo ci aw làkk woo xam ne bokkul ak kàllaama gañ bind fànn yooyee loola luy indi jafe-jafe la sara xam-xam bu xóot ci lislaam buñ bind ci arab bëgg koo tekki ci wolof lu jafe la waaye nag nu jéem rek ndax xëy na ala qadril mashaqa coono ba na demee rek xëy na yool ba ndax yàlla mu tol noona danañ jéem a jëfandikoo ci wàllu salaa bi wax ak misaal ak liyaar ci ay loxo lépp loo xam ne laaj na ko ndaxte lee mu mën a àgg ca xel ya nit ñi mën koo dégg te loola rek lañ ci jublu kon waxtaan wi ni ko mbokk mi waxee moo di assunnatu nabawiya wa makaanatuha fi lislaam sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak place bi mu am ci lislaam nu jéem koo séddale kon ñeenti tomb xëy na gën naa yaatu loolu waaye ñeenti tomb yooyu defe naa ne bu fekkoon ne leer na liñ bëgg a wax dana leer tomb boo ci jëkk mooy jéem a xam sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan ak luñ jublu ci di wax ne palaasam ci lislaam buñ ne palaasam ci lislaam makkaan moomi luñ bëgg a wax lan lañ bëgg a wax ñaareelu tomb bi mooy aajowoo gi nga xam ne jullit bi aajowoo na ko xam sunna waxuma bëgg de ndax jullit yépp bëgg nañ sunna waaye nag aajowoo gi nga xam ne woo nañ koo xam moom sunna ci boppam ak li ne ci biiram ci ay xam-xam yoo xam ne yu xóot la ñetteel ba wàccuwaay bi sunna am ci biir sharia sharia buy digle ak tere di santaane ak di moytali moytu moytuloo sunna ban taxawaay la am ci loolu ñeenteel ba ñu koy mujjee ay tomb yu néew rek yu aju ci yii gàllankoor nit ñi ba mën a dox seen diggante ak xamlu sunna wala buñ ko xamloo ba noppi mu mën a dox seen diggante ak gàllankoor leen ba jëfe ko jafe leen wala duñ ko jëfe sax faf kon ñeenti tomb yooyu ci la ñi jéem a euh, waxtaan insha allahu ci li ci waxtu bi maye lu mu ci maye wutit fu jeexee rek njiitul jataay bi bu nee jeex na ñu yemale ko foofa kayit yaa ngi nii su ko defee ñu daal leen koy jox ñu seet nu ñuy def ba ñu ci des man cee jëriñu kon tomb bu njëkk bi sunnatu nabawiya sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy lan danoo miin ci jataay yu mel noonu <coughs> bu nit ñi toogee di xamle sunna nga dégg ñu ne la sunna day bu dee ca boroom xam-xami fiqiya mooy bu dee ca boroom xam-xami mooy nàngam bu dee ca boroom xam-xami xadiis ya sunna mooy nangam bu dee ci boroom xam-xami usulu diin muy borom xam-xam yi gëstu ci wàllu pas-pas ñi ne na mooy nangam. séddale bu bari boobu su fekkee ne ak séddale la ngir jàngale ndax mu mën a leer ci boppi nit ñi su boobaa loolu xëy na du wàññi dara waaye nag lañuy ñuy ragal mooy nit ña koy déglu. defe ne lislaam daa doon ay kuréel kuréel bu nekk am sa sunna soo xam ne bokkut ak sunna sa moroom loolu lañ cay ragal dañuy ragal suñ nee sunna daal ca fuqahaa ya boroom xam-xam ya boroom xam-xam fiq ya ñu ragal ne yow dangay jàpp rek ne mooy maa yusaabu faailuhu wala yastaxiqu taarikuhu al iqaab aw al itaab nga daal di rek kon de mooy li nga xam ne fuqahaaw ya seen sunna ñoom mooy loo xam ne ku ko def da nga ci amub yool waaye ku ko defuti dara du la war mel ne boroom xam-xami usul yi it kon seenub cër ci sunna day mel ne kon moo di maa sadara an innabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluxu an yakuna dalilan li xukmin shar'i day mel ne kon ñoom boroom xam-xami usul ya suñ nee sunna la ci seenub cër mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo wax wala mu def ko wala ñu def ko te naqarluwu ko te fekk loola manees na caa génnee atteb sharia mel ni ñooñu loola mooy seenub cër ñoom itam ci sunna ma ne séddalikoo gii kuréel bu nekk ci biir boroom xam-xam yi ñu ne sunna fa ñoom mooy lii ma dellusiwaat ne su fekkee séddale jàngale la ngir nit ka mën koo dégg kooka dara du ci nekk waaye ñu xam ne sunna si nuy waxtaane noonu tey bokkut lenn ci yooyu yi sunna si nuy waxtaane moo di lislaam ni ko al imaam albarbahaari waxe ci téeréem bu ñuy wax charxu sunna daf ne ilamu ann alislaama huwa sunna wa ann alsunnata hiya alislaam wala yaqumu axaduhuma illa bil axar nee na xam leen ne sunna mooy lislaam lislaam it mooy sunna ñaar yooyu amu ci lenn loo xam ne mën naa dem wacc moroom ja kon ma ne sut na ci lislaam laa nekk te jàppoo ci sunna ku jàpp ci sunna ku nekkit yaa ngi ci biir lislaam kon diine lislaam ak shariaam ak i njàngaleem ak i ndigalam ak i tereem mënee su ko dégg mukk te jaare ko ci sunna loolu danañ ci ñëw ci kanam lii moo tax lu bari ci boroom xam-xami lislaam suñ masaan bind sax ci fànn goo xam ne nit ñépp xam nañ ne googa fànn gu mënta ñàkk la muy buntu tawxid buntu tawxid moom jullit bu nekk xam na ne mënta ñàkk tawxid ndax ku amul tawxid da ngay tàmbi ci bokkaale te bokkaale ku ca tàmbali maar day taali génn nga loolu moo tax boroom xam-xam yu mag ya dañ daan bind ci bunt boobu yi nga xam ne ñépp nangu dañ ne bu mënta ñàkk la muy tawxid suñ noppee nu ñuy def téere ba téereb sunna lañ koy tuddee téereb sunna al imam ahmad ibnu hanbal mook doomam abdullahi kenn ku ci nekk taalif na téere boo xam ne sunna nga ko tudde waaye boo ubbee téere ba la nga fay fekk mooy tawxid boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax alxalaal noona la def ku ñuy wax almarwazi noona la def allalakaa'i noona la def altabari noonu la def moom itam alxayrawaani muy borom risaala bu siiw bii taalif na téere boo xam ne kitaabu sunna la ko tuddee te tawxid la ciy jàngale rahimahumullahu jamian kon boroom xam-xami sunna yooyu liñ la bëgg a wax moo di li imaam ji wax léegi ne la sunna mooy lislaam lislaam mooy sunna ñooñu dañ la ko bëgg a wax ci weneen waxin mu di waxinu xam-xam bi gën tëlee ñàkk ci xam-xami sharia yi muy xam-xam buy lijjanti mbirum pas-pas ak la war a ci xolum nit ki xam-xam boobu yi téere yañ ca taalif téere sunna la kon ndekete mooy téere lislaam ju wér la lañ la ca bëgg a wax kon liñ bëgg a wax moo di ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bii nuy waxtaane amut loo xam ne dañ naan bu la neexee nga jël lii bu la neexee nga bàyyi lee kenn amul ruxsa ak yombal ci bàyyi sunna ndax bàyyi sunna mooy bàyyi lislaam ni nga tëlee am roxsa muy ak yombal ñene la mën ngaa bàyyi lislaam ba ci kanam nga delsiwaat loolu moo tax mënoo bàyyi sunna ba ci kanam nga delsiwaat al imaam abu daawud nettali na ci ab sanad bu wér jële ko ci saxaaba yi bu ñuy wax al miqdaam ibnu maadi karib mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ala inni utitu alqurana wa mislahu maa mu ne dañoo wàcce ci man alquran ba noppi wàcce ci man leneen lu mel ne alquran leneen lu mel ne alquran misliya muy lu nuróoli ak alxuraan lu aaja xool la lu ci jublu ndax dañoo wàccee ci man alxuraan leer na alxuraan moom jullit yi xam nañ lu mu mooy kaamil bi kaamil bi mooy alxuraan waaye leneen li mel ni alxuraan ñépp dëppoo nañ ne mooy sunna waaye sunna nu mu mele ne alxuraan ndax dafa toll ne moom defe naa ne xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ ko dajalee moo ëpp kaamil bi wala déet moo ko ëpp defe naa ne dana ko nangam ca sax mën na koo fukk ca sax léeg lañ nga gis benn téere xadis buñ taalif boo xam ne ay xadis képp lañ ca dajale mu mat ñaar fukki xaaj nangam yoo xam ne benn bu ci ne day toll nepp kaamil te lépp xadis a ca nekk kon misliye gi du ci kam maanaam jublu ne indil nañ ma leneen lu toll ne alxuraan nga xam ne boo ko gisee noonu la bare waaye sunna moo gën a bari alxuraan waaye leneen lu ni mel ci lan ci xujjiya wa mislahu maahu mooy ni alquran doone loo xam ne yàllaa ko wàcce di ci digle di ci tere loolu yi mu ma indil itam muy xadiis muy sunna moom it yàllaa ko wàcce di ci digle di ci tere kon sunna sun borom tabaraka wa moo ko jox yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu jottali ko bindee fii xadis boobu daf caa teg mu ne ala yusiku rajulun shabaan arikatihi yaqulu alaykum bi hada alquran fama wajadtum fihi min xalaalin fa axilluuh wa ma wajadtum fihi min xaraamin fa xarrimuuh mu ne dangeen dem ba jëmmi jamono ngeen gis nit ñoo xam ne dañuy toog ne daal jàpp leen ci alquran te doyloo ko lu ngeen ci fekk mu dagan fab leen lu ngeen ci fekk mu xaraam bàyyi leen kon ñooña lañuy woote mooy yam ci alxuraan te bañ caa boole leneen maanaam bañ caa boole sunna bañ caa boole xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu ca teg mu ne wa innama xarama rasulullahi kama xarama allah nee na lii yonent bi yàlla bi xaraamal mook lu yàlla xaraamal ñooyam loolu alxuraan ci boppam daf koo jàngale alxuraan ci boppam daf ko jàngale moo di xadiisu abdullah ibni masud daf ne yàlla tere na jigéen joo xam ne dafay jokk ci kawaram dara xaramal na ko am soxna suñuy wax umm yaqub soxna si dikk ne ko li nga wax day rëy na ndax man dellu naa ci alquran jàng naa ko ba jeex gisuma fa fu yàlla di waxe ne jigéen ji yokk ci karawam dara def na lu xaraam abdullah ibni mas'ud radiallahu taala anhu ne su fekkee jàng nga ko de kon romb nga ko mu ne ko jàng naa ko de mu ne ko ndax jàngoo fa wa ma aataakum ar rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu ndax gisoo fu yàlla di waxee ne lu leen yonent bi andil lu mu leen digal def leen lu mu leen tere ba leen mu ne ko ah ok loolu koy gis naa ko fa mu ne ko mu ngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tere jigéen mu jokk ci kawaram dara kon déggin woowu moo lay won ne sunna ci boppam alquran moo ko moo ko jël accepté ko moo ko nangu moo ko tàllal nit ñi jox leen ko ne leen mu ngoog lu ca nekk lu ne jël leen lu mu leen digal lu mu leen tere lu nekk bàyyi leen kon xadis boobu yi jàll léegi muy xadisu utitu alqurana wa mithlahu maahu daf nuy feddlil ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yonent bi ndax loolee mu doon wax ne dana ñëw ci jamono yooyu dikkagul woon waaye dem nañ ba jëmmi jamono am ay nit yoo xam ne ñu ngi leen di tuddee alquraaniyuun seenu kuréel la muy woote mooy nañ bàyyi sunna te jàpp ci alxuraan kese ñooña diine ju taq suuf lañu yor diine ju lëj te kenn mënu koo lijjanti moom lañ yor kon xadis bi mi ngi nuy jàngal ne sunna ci boppam waxyu la bu jóge ci sun borom tabaraka wa taala wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuha nee na yonent bi du wax neen lu mu wax yàllaa ko wàcce ci moom kon nag su fekkee ne lii nu bëgg a wax nii leer na ñu xam ne buñ nee sunna lan ca jublu du mooy la jàkkaarloog farata kon du wérati mukk ñuy dégg ku ku naan ñii naan ñooy ahlu sunna ñooñu kon ñoom seen mbir manqué na nun nooy waa farata kàddu ku mel noonu dégg naa ko benn bis ku naan ñi naan nun nooy waa sunna nun loolu duñ lu ko jaay ndox nun nun nooy waa farata kon ñi yëgal leen ne sunna suñuy wax mooy lislaam waaye waxuñu sunna soo xam ne su la neexee coppati jël li bu la neexee bàyyi ci kaw ne boo ci coppatee ñi am ab yool boo bàyyee dara du la war bu kay kii boo coppatee amub yool waaye boo bàyyee dara war la bàkkaar day tegu ci sa kaw kon doonul moomu maanaa kon nag buñ jëlee baatum ne sunna ak palaasam ci lislaam loolu waxin rekk la waaye sunna ci boppam mooy lislaam mu ngi mel na nga ne lislaam ak palaasam ci lislaam daanaka wax lay doon joo day xaw a jaxasoo bokkut ak soo ne woon jigéen ak palaasam ci lislaam ndax jigéen keneen la ku nekk fële lislaam doon keneen ku nekk fële mu ñëw ñu may ko fa palaas waaye nag sunna moom bindoowul noonu maanaam daa bokk ci biir lislaam kon suñ ne palaasam waxuñu ne dafa jóge fële doon keneen ñëw ñu ne ko kaay ñu jox la fi place ci biir la bokk dañoo bëgg a xam bi mu bokkee ci biir nag lam fa doon mu ngi mel ni nit ki nit ki yu bari moo ko composé mu door a doon doomu aadama ay loxo nga fee boppa ngee bëtë ngee dënd baa ngee tànk yaa ngi buñ ne woon nit ki tànki nit ki ak palaasam ci nit ki loolu tekkiwul ne tànk yi bokk ci waaye xam nañ ne palaasam mooy mooy dox soo amul tànk doo dox bëti nit ki ak palaasam ci nit ki bët yi kenn ku ne xam na palaasam foofu lu mu fay jariñ day déglu day xool nopp yi ak palaasam ci nit ki la mu fay jariñ mooy day day déglu waaw kay loolu lan jublu nag ci sunna ak palaasam nag ci biir lislaam kon kon ci biir lislaam ci la bokk waaye lu mu fay lu mu fay def su loolu leeree kon lu mën a jàll ci tombum ñaareel bi muy aajo woo gi nga xam ne ñépp aajo woo dañ ko sunna ñépp li dikk ci alquran ak sunna di soññee ci jàpp ci sunna muy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jël lépp lu jóge ci moom ku ko dajale woon mën nga seen dawra bi yépp ba ngeen tàmbalee ba ba muy jeex lépp mën naa jëm ci lool te daanaka sax lépp ci loolu la jëm ndax ginnaaw dawra bi ci boppam xolu waxtaanam ci at mi mooy sunna ak lu ca jëm lépp lu ngeen di wax ba ba muy jeex rek ci loolu la jëm luy soññi nit ñi ci jàppaloo leen ci sunna ak bàyyiloo leen lu juuyoog sunna borom bi tabaraka wa taala dàq na ngëm yàlla boole ko ak giñ ci jëmmam ju tedd ja ci képp koo xam ne atte woowut sunna maanaam jëlul sunna def ko mu nekk imaamam ji koy atte borom bi ne fala wa rabbika laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidoo fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima borom bi tabaraka wa taala nee na waat na giñ na ci boppam ne nit ñi duñu mën a gëm mukk lu dul dañu laa yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def la ki ñuy atte woo ci lépp loo xam ne sew xew na seen diggante waaleykum salaam wa rahmatullah buñ ko defee ba àggal dañ ciy yëg féexu xol dañ ci yëg bànneex waaye dañ ko def ba noppi yëg ci naqar xam nga ñu bari lu jëm ci wàllu sharia ak i santaaneem suñ koy jëf dañuy yëg ci seen bopp ne ab yan bu diis la boo xam ne da nga koo yanu di sakk-sakk yi léeg-léeg nga gis sax ci borom xam-xam ñoo takaalif lañ ko ab takaalifu charia waaye fekk ndekete diine ji wërta demee noonu jamono yi ngay nangu di jël di accepter di jaamu sa borom da ngaa war a yëg ne lu woyof la ci yow ànd ci ak bànneex su boobaa dootu yor turu turu takaalif su boobaa dootu ko yor nee na dañ koy nangu atte woo ko ci seen mbir yépp la rëy ak la tuut la nëbbu ak la feeñ ba noppi boole ko ak féexu xol summa la yajidoo fi anfusihim xarajan duñ yëg benn tiis walla benn métit mimma qadayt loo wax rek noona la soo nee nii la rek ñoom loola day fekk ñu nekk ca wa yusallimu taslima ñu joxe seen bopp ndax léeg-léeg mën ngaa dem ba mbir mi agsi foo xam ne xam nga ne lii da ko nangu ci kaw ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge waaye mën naa des ci sa xol ay leeral yoo xam ne soxla woon nga ku la ko leeralal te gisoo ko su boobaa la fa sës mooy taslim jox sa bopp gëm ne kii lépp lu jóge ci moom dëgg la nga nangoo ko noona borom bi tabaraka wa taala buy wax ne nit ki na attewoo mbiram yépp la rëy ak la tuuti la nëbb ak la feeñ na atte woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci léppam la ci mbirum àddunaam ci mbirum alaxiraam maanaam ci mbirum addunaam na koy dundee na muy lay dox digganteem ak nit ña ak mbirum diineem mbirum pas-pasam ci xolam mbirum jaamu yàllaam mbirum ay jikkoom lépp na doon loo xam ne daf ko roye daf koo tànqe ci sunna yonente bi wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim nee na jullit bu góor ak jullit bu jigéen ñaar ñooñu kenn ku ci ne liñ lay xàmmee moo di su yàlla ku yonentam santaane ne def leen wala mu tere ne baleen su boobaa amatuñ lu ñuy tànn amatuñ li ñu tànn ndigal la daal def ba fa sa kàttan yam tere la daal bàyyi mu jeex tere moom bàyyi yomb na kenn du wax ne bàyyi la nga man waaye ndigal li dangay def la nga man tere nag lépp ngay bàyyi moom amut looy bàyyi looy looy dese ma xiyara tànn bakkanu doomu aadama ji da koy def ay cëram da koy def léeg-léeg ndigal ñëw mu bañ koo def kooku dangaa tànn leneen da nga tànn leneen waxtu julli jot na sedd ba metti na yaa nga tëdd ci lal ba dégg nodd ga foofa ndigalul yàllaa ko yonentam taxaw na nooy def boo ñoddiwaatee sa mbalaan tëdd ne xaaral ba nes tuuti seytaane not la ngay nelaw ba jant ba fenk kooku am nga xiyara foofu tànnal nga sa bopp bakkan bi tànnal na la seytaane tànnal na la nga jël bàyyi tànnuk yàllaa ko yonentam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane na ne góor ak jigéen ak mag ak ndaw ñépp dañoo war a góorgóorlu jàng seen diine nga ne man de loolu amatuma jotam léegi mag la amatuma jotug jàng te lépp loo xam ne lu mën a dolli sa wërsëg la am nga jotam kon loolu mooy sa xiyar bu booba bisee tànnal nga sa bopp lu bokkut ak la la yàlla tànnal foofu dëgg la liggéey beeg lu jëm ci kër gi loolu dafa war ak jaamu yàlla ci la bokk su rafetee ne mu war rafete waaye nag du dox mukk diggante nit ki ak ak sàkku ji xam-xam ci diineem jigéen nga nga ne dangaa teg sa bopp ay mees wala da ngay dox sax di def bopp neen ca mbedd ma wala sax da ngay soppi saw yaram nga dox ba dégg boroom xam-xam ba la ne loolu dafa xaraam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lii nee na laa alxuraan nee na lii nga ne ah noonu de ay ndaw lan bu nu weesoo lii bu soobee yàlla tuub kooku am nga xiyara tànnal nga sa bopp tànnal nga sa bopp seytaane yi muy naxe nit ñi ay njëfandukaay yu baree bari la yor su doon kuy rëbbu da daan fiir yu bari la yor am na fiir yoo xam da ngay joggi mu rax am fiir yoo xam ne ay yollu ngar la da ngay dugg ba ca biir nga bëgg a wàññiku duutoo mën a wàññiku am fiir yoo xam ne ak mbëpp lay doon xeet yooyu yépp seytaan yi da leen yore ki nga xam ne day ñëw ne la yow ci sa ndaw nga nekk ñii di wax nii li ñuy wax boo ko dégloo sa ndaw gi xamoo fu mu jëm ñii jóg di wuti boroom kër sax buñ la gisee nga mel nii muuru di ma laj ma di wuti soxna muuru di ma laj ma la ji dem ak ñëw ñooñu leneen la ñuy xalaat foofu la la seytaane di jar waaye su xel mi delsee nag mooy ngi yëg ne ndaw gi ñuy wax benn ku la ne da koy weesu te yàlla bis bu set kat mi ngi lay jox ay exemple ci ne nit ki âge bu nekk nit ka dafay toll di faatu maanaam fu ne nit dana ko toll faatu xëyal déglu rajo bi rek tàgge bi danga dégg kuñ ne la ab liir la juróom-ñetti fan la am dégg kuñ ne la fukki fan la am dégg kuñ ne la ñaari at fukki at ñaar fukki at ak juróom fanweer juróom fukk juróom-ñett fukk téeméer da dégg ñi lim fan yi nga xam ne ndekete yow foo toll fu ne boo dégloo dana am ku tollook yow ay at ba noppi faatu kon nga xam ne programme bi teguwut ci kaw ne man ndaw laa damay nekk ci lu ma neex bu ma màggee nag bu ma màggee nag door a soppiku door a tuub door a baax lool sa programme yow la yaa seytaane mi la koy digal waaye yàlla loolu du programme kon kooku muy benn bi mooy bu la seytaane bàyyiloo jàpp ci ndigali sunu borom tabaraka wa taala i tereem ci kaw ne yow ndaw nga ndax xamoo kañ nga fi jóge beneen bi mooy kii ñëw ci yow naan la ñii wut soxna boo muuroo boo mele nii ñooñu dañ la fi teggi ñooñu xamuñu li ñuy wax ka nekk ci caaxaan sax tey góor yàlla xam na ne su jógee di wuti soxna ka ko wóor ne ku ñoŋ la foofa la jëm benn bis benn jàngalekat boo xam ne ay élèves yu jigéen lay jàngal école bi mu yor ay jigéen yi kese fay jàng dafa ñëw di essayer cib téereem la ko bind nee na damaa ñëw ne xale yi dama leen indil tey gato gato yi yépp ci benn palaat la ko def tàllal ko tableau am na ci yoo xam ne ci ay sachet la ne maanaam dañ koo laxas gato yi am na ci yoo xam ne dañ koo paqueté mu nekk ci ab tuwaalam bu rafet am ci yoo xam ne dañ koo teg noonu rek ci biir palaat ba mu ne leen ku ñëw rek na tànn benn ñi ñëw di tànn ku ñëw rek bi yor laxas bi ci ngay tànn biñ paqueté di ko tànn di ko tànn ba mu yàgg tableau ji yiñ muurul rek ñoo fi des mu woo leen ci kalaas bi nag ñu daje mu yor palaat bi ne leen gis ngeen palaat bi nii mu mel nga xam ne gâteau yi ci newoon yii dañ leen a muur yi muuruñu leen bi ngeen di tànn yéen yi ngeen tànn mooy yi am couverture seen mbir nag nii la demee su ngeen dee dox ci mbedd mi def yarami neen def boppi neen nit ñu bon ña sax waxuma ñu baax ñi moom dama leen a jëllale ndax ñu baax ñi moom fu ngeen mën a nëbbu yéen la ñuy seet waaye même ñu bon ñi sax suñu tànn yéen la ñuy yéen la bëgg a am waaye nag duñ ko mën a am buñ ko mën a am bokk waaye buñ ko mën a am waaye ñoom sax loolu lañ bëgg kon ay firndeengoog yoo xam ne dalay won ne bu mu la tax bu doon mbirum àdduna moom yi sax nga xam ne moom la ñuy laytaayoo pour bëgg laa tere sa diine loolu sax bu mu ko jaar ndax waxuñu lu am maanaam seytaane bu boobaa li muy wax du lu am wattandiku ko kon loolu mooy lu jëm ci ne jullit bi amul ab sañ-sañ ci bu sunna ñëwee maanaam ndigalu yonent bi ak tereem mu ne damay tànn lu ma neex su ma neexee tànn bi su ma bee neexut ma bàyyi amma lu jëm ci xam-xamu sunna nag kenn ku nekk xam na ne te loolu ci ndongo yi ak ñuy góorgóorlu di jàng ci la gën a jëm mu di bu dee bëgg sunna jullit yépp a bëgg sunna ku di jullit rek bu bëgg nga sunna waaye nag ñu xam ne bëgg dara ku ko def da koy fàggu da ko koy jéem a wuti xam-xamu sunna kenn munta nekk ku jàpp ci sunna te xamul li ngay jàpp lu mu doon nit ki li muy jàpp faw mu xam lu mu doon loolu moo tax jàng mënta ñàkk buñ ne jàng munta ñàkk tekkiwul ne ñépp nañ laxas borom bitig ya tëj seeni bitig ña nekkoon ca tool ya bàyyi tool ya ñépp dem laxas jàngi déedéet waxee sut loolu waaye fu nit toll fu nekk am na nu mën a jànge ki am dara ci waxtu mën a jóg fa bu téere waaxu ba fa nit mu jàngal ko dara bu doon benn yoon ci semaine sax ay bis gi yor nga ci téere dem ca nit mu xamal la loo xamul woon te loolee nga xam nga jariñoo ko yaa ngi ci sàkk xam-xam ki dem ba nga xam ne àgg na ci mën a yëral boppam di xam mën a yëral boppam di xam mu fexe ba bis bu yàlla sàkk bis bu ne walla na ko waxtoom maye dana fexe ba ay bés gi mu jël ci ab téere bu mu jàngul woon yër ca jàng ca ba xam ca lu mu xamul woon te loolee mu xam ma di ko jariñoo kooku na jàpp ne mi ngi jàng xam-xam ki dem ba waxtoom xat mu mën a fexe ba am kaset boo xam ne wóor na ko ne bii dafay jàngale diine day xamle mu yor kaset boobee fu mu liggéeyee ba sonn bu ñëwee toog ci néegam wéet ak ngegenaayam taalub rajoom teg di déglu dara lu koy tànqal nekku fa kooku na jàpp ne mi ngi sàkku xam-xam waaye nag yooyu yépp ku ci set wecc yorub téere dem fi nit di jàngi doonoo ko jàngoon ba xam man di xoolal boppam di yër dégluwoo demoo ca ndaje xam-xam ya ne damaa amul jot te bu set nga xëy di dox ci sa wërsëg di laamisoo sa diggante ak say bokk di tukki di dem ak ñëw lu ne nga dugg ca ba noppi ne amatuma jotu jàng xam-xam ku àgg foofu ma ne seytaane mi ngi lay not mu ngi lay not moo xam yëg nga ko moo xam yëgoo ko da di xam-xamu sunna nag ñépp a ko aajowoo kon dañ ko war a jéem a xam dóor koo jëfe ndax même ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir di góor-góorlu sax nag di jéem a góor-góorlu te xam-xam boobu manqué leen lool benn danañ laxasoo ak boroom xam-xam yi ci di leen laaj wala su loolu amut seenu jàpp ci sunna dana amuk def bu baax a baax a baax ndax jëmmi xaddis ci boppam doonut lu yomb rawatina xadis ba wér ak bi wérut lu bari ci boroom xam-xam yi ak wootekat yi léegi léeg nga dégg ku def aw waxtaan woo xam ne ci kawub xaddis la ko teg nettali xaddis ba ba mu yàgg fiiri ko ba mu àgg génne yañ ca mën a jariñoo yépp te faf dub xadis nag defe ne xadis la te ndekete dub xadis léeg-léeg nga dégg ku jël xutba bu ajjumaam nit ña daje xutba ba mu jeex teg xutba bi ci kawub xadis ndekete dub xadis kon loolu daf la yëgal ne même ndaw ñi jóg di jéem a la ci sunna ba nga xam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj na ci ñoom ñu sonn lool nag ci jéem a xam xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xami sunna nag liñ taalif ci bunt yooyu ci ay téere yoo xam ne day dimbali nit ki ba mu xam sunna kenn xamul nu mu toll téere yoo xam ne dañ lay jàngal fooy jaar ba xam boroom xam-xami xadiis yi lii ñuy wax lu mu doon ñu tudde ko xam-xamu mustalax xam téere yoo xam ne dañ lay dimbali ba ñoo ñi ñu naan ceenu xadiis bi maanaam silsila bi ci diw la jóge jaar ci diw jaar ci diw ba àgg ci yonent bi gaañoo ñi koy tuxal nga jàng leen ba xam leen liñ ci taalif ci ay téere kenn xamul nu mu toll tudde ko xam-xamu jarx wa taadil dañoo dem bay jàngale sax ñooñu seeni seeni maam ak seeni tur ak seeni dàkkental ak fuñ dëkkoon ak fuñ jàngee ji woon xam-xam ak yooyu yépp a ngi ci biir téere yi nga xam ne koo ci jël ku ne mën nga koo xam xamin woo xam ne ba watuut nit ñi nga dëkkal di dox bari na ci koy dajal di nuyu di jaar ci santam te xamee woo ko noonu loolu ñi ko def mooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi xadis yi dimbali la ba xadis bi ci boppam nga mën a xam boo ko jàngee li muy wax lu mu doon saraal la ko ba mu leer kon day mel ni aw lay moom amatut ci ne sun na mënulu koo xam nin ko aajowoo noonu lan ko mën a xamee yow mi nga xam ne mënoo dem ba àgg ci xóotaay boobu rek di xam la wér ak lu wérut borom bi tabaraka wa loolu bàyyi woon na ko lool na ko béréb kon fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun su ngeen xamut laaj leen ña xam loolu mooy jàng leen su ngeen xamut jàng leen ndax laaj ka xam kooka mooy jàng li nga ñëw ba agsi ci moom xamoo ko xamoo ko nga laaj ko boroom xam-xam mu wax la ko loola xam nga ko bis boobee yaag boroom xam-xam ba yéen a ca yam la ca des mooy daal di koy takk rek fexe ba bu ëllëgee boo gisee leneen laajaat loola dolli ko ci mu doonaat rek ab xam wattandiku wattandiku nag di laaj te fekk li ngay laaj bàyyi woo ko sax xel lu ñu la tontu tey boo léegi mën nga koo laajaat laaj yi nu mel noonu moom du du jàng xam-xam <coughs> tomb ñetteel bi moo di manzilatu sunnati nabawiya min al ahkaami sharciya ci biir sharia ci boppam sunna dafa am place place nag boo xam ne bu màgg la maanaam su doon nit nga ne bopp daa am place ci nit day mel ni loolu la defe naa ne bopp lu am solo ci nit la nit kuy dox di waaxu di dem ak ñëw di doxi soxlaam te yurul bopp liñ ko gis bariwul wala boog njommite lay doon na nag noonu la mel ci biir sharia waaye palaasu sunna ci biir sharia am na ñetti xaaj ñetti xaaj benn bi moo di an tatiya mu akkidatan li ayatin min alquran sunna dana ñëw fedd li atte boo xam ne alquran da ko indi loo xam ne ñëw na ci alquran sunna ñëw di ko fedd li si di ko dëgëral la koy misaal moo di xadisu abdullah ibni omar ibn alxataab radiallahu taala anhu mi ngi ci saxiixayn ci buxaari ak muslim daf ne buniya al islaamu ala xams lislaam dana ci juróomi yëf lañ ko tabax bi ci jëkk mooy tawxid shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ba ca tegu nee na mooy taxawal julli gannaaw bu tawxid jàllee la ci sës mooy julli ñetteel ba nee na mooy asaka ñeenteel ba mooy aj juróomeel ba nee mooy woor wala ñeenteel ba mooy koor juróomeel ba mooy aj lu ci nekk ñëw na ci biir yooyu benn la juróom yooyu daal nee na moo tabax lislaam xadis boobu daa ñëw di fedd li ay atte yoo xam ne saxoon na ci alquranul karim ndax borom bi tabaraka wa taala nee na wa aqimu salata wa aatu zakata warkau ma rakiin foofu alquran daf fee digle ne julli leen te woor kon bu sunna ñëwee ne lii mooy ponki lislaam kooku dafa fedd li julli leen te joxe asaka borom bi tabaraka wa taala waxaat yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun farataal nañ ci yéen koor kon bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci ponk lislaam la ba kooku feddli la walillahi ala nnaasi xijjul bayt man istataa ilayhi sabila yàlla santaane na foofu ne dem leen aji ci ku ko man kon bu xadis bi ñëwee ni ci ponk lislaam la bokk kon loolu feddli la kooku mooy maqaama mu jëkk mi sunna ñëw fekk li ko yëkkati mooy feddli loo xam ne saxoon na ci biir sharia ndax ñëw na ci alquran ñaareel bi an tatiya mubayinatan li kitaabillah léeg-léeg sunna dana ñëw di leeral alxuraan ay atte ñëw ci alxuraan yoo xam ne leerut sunna ñëw leeral ko loolu dafa bokk ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw di leeral si xam nga kiñ ko wàccee ci moom déggal ko ko ba mu dégg ko ñu ne ko demal jàngali ko nit ña demal dund ko fa ñoom kooka sunnaam war naa mën a ñëw leeral ko moo tax borom bi tabaraka wa taala ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun damaa wàcce ci yow alquran ngir nga leeralal ko nit ñi wa ma anzalna alayka alkitaba illa li tubayina lahum alladi ixtalafu fihi wàccewu ma ci yow alquran ji lu dul nga leeralal leen ba jooyoo yi ñuy jooyoo mën a leer ku féete ci dëgg ñi xam ko ku féete feneen ñi xam ko alquran nag ni muy sunna nag ni muy leerale alxuraan maanaam ni muy leerale attey sharia yi ñëw ci alxuraan ay leeraliin la du wenn leeraliin ba ci jëkk mooy li ñu tudde bayaanul mujmal léeg-léeg alxuraan day yanu rekk ab takk dikk ne la takk baa ngoog takk bi lu ne ci biir waaw mbuus mi lu ci ne na ñëw tekki mbuus mi di ko tàllal ah lii day ceeb la lii day yëkkati lii de nangam la lii de lem la lii de nga ne ah kon takk bi looloo ci nekk loolu la ñuy tudde bayaanul mujmal alquranul karim li ci ñëw ci julli moo di taxawal leen julli mbuus moo xam ne la ca ne mooy taxawal leen julli waaw julli ndax aaji woowut noo xam ñaata julli la ñuy julli ci bit ci bis bi loolu nekkul ci alquran sunna moo ne nu juróomi yoon ngeen di julli jullik suba jullik tisbaar jullik takkusaan jullik timis jullik gee door a leeral la ciy tegu nag ci ay nawaafil yoo xam ne day dolli ay daraja di far ay bàkkaar di rafetal ak jaamu yàlla julli googu bu ñu xamee ñaata la ba àggal soxlawul ku nekk ñu xam ñaata rakkaa la ah, ok soxla nu xam bu dee julli suba ñaata rakkaa la ñuy julli tisbaar ñaata la timis ñaata la gee ñaata la takkusaan waaye loolu nekkul ci alxuraan na ñëw julli gu nekk mu ne nu kii ay rakkaam nii la waaw nañ koy defe kuy julli nooy jullee mu julli ci seen kanam moom yonente bi sallallahu alayhi wa julli ci kanam nit ñi am na bis boo xam ne sax dafa yéeg ci ko minbar ba ba gën a kawe ba ñépp di ko séen mu taxawal jàkkaarloog ñoom kon julliwul woon waaye da doon misaal julli taxaw kàbbar jàng ñu dégg rukkoo siggi siggiwaat julli sëlmal ne leen damaa def noonu ngir ma jàngal leen julli dama leen doon jàngal julli bi mu noppee lu ca teg sallu kama raaytumuni usalli su ngeen dee jullee jullee leen nii ma jullee saxaaba ya tuxal ko mu daal di doon ak julleem waaye ku bëggoon a xam ci biir alquran ku taxawal ci julli nooy def kañ ngay dugg ci biir julli gi soo rukkoo nooy def ana lan mooy sujjóot looy jàng soo siggee ci rukkoo ba nooy def soo sujjóotee looy wax soo toogee diggante ñaari sujjóot ni sooy taayee looy wax sooy sëlmal sax looy wax ku ko doon seet ci alxuraan doo ko ci gis kon loolu la ñuy tudde bayaanul mujmal nga ñëw ci asaka alxuraan rek waa atul zakat mu jeex joxe leen asaka waaw ci luñ koy joxe ñaata la ñuy am door a joxe asaka xamuñu ko loolu doon ak taxaw goo xam ne bu am solo la sunna ñëw wax ko waxit kañ lañ koy joxe ak kiñ koy jox nuñ ko koy joxe kon bu dee koor noonu kañ la koor gi tàmbali nuñ koy defee yan lay bañ lan mooy teggin yi ci nekk yooyu yépp moo ko jàngal kon daal foofu liñ fay jële ndekete moo di sunna ci boppam mënee suta dem bàyyi ko gannaaw soo ko defee dara du sotti moo tax ñi la wax na dañuy doyloo doyloo alquran laaj leen nu ñuy jullee wa aqimu salaata nuñ nuñ ci nuñ ciy jullee su fekkee ne dañoo teg sunna fële kon sunna mënee su ko woon gannaaw ci biir lislaam mënul ñàkk moo tax al imam yaxya ibnu abi kasir dafa wax ne assunnatu qaadiyatun ala alkitaabi wa laysa alkitaabu qaadiyan ala sunna jooju wax alimaamu daarimi mi ngi ko génne ci muqaddima téeréem bi siiwe sunanu daarimi ci bunt boo xam ne mi ngi ko tudde baab assunnatu qaadiyatun ala kitaabillah bunt boobu ak li imaam wax mooy sunna mooy atte alquran waaye du alquran mooy atte sunna kon loolu lañ ci jublu moo di sunna moo mën a ñëw faram-fànce alxuraan tafsir ko leeral ko bañ xam ko waaye du alxuraan moom mooy ñëw di tafsir sunna kon loolu mooy bayaanul mujmal kon bokk na ci ni alxuraan ni sunna di leerale sharia moo di fekk loo xam ne dañ koo lëm mu ñëw leeral ko bañ xam lu mu doon ñaareelu bi nga xam ne dana ko di leerale moo di taxsiisul aam taxsiisul aam bu ko doon jegeel bañ man koo dégg danga naan sharia day ñëw ci alxuraan ne lii ñépp ko bokk lii ñépp ko bokk sunna ñëw ne ah kii ak kii ak kii bokkuñu ci dindi ñooñu loolu mooy taxsiisul am ñépp a ko bokk mu ne déedéet bokk jooju nit ñi bu leen ko déggee noonu man miñ yebal ne ma demal bayaane mbir ma xam naa ni ñii bokkuñu ci kon ñooñu bokkuñu ci la cay misaal borom bi tabaraka wa taala ne yuusikum allahu fi awlaadikum lidakari mislu xadil unsayeyn góor ga faatu borom bi tabaraka wa taala nee na ay doomam buñ ko dee donn na góor am ñaari cër jigéen am benn xanaa loolu góor ñépp la wax kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne loola day yonent ya bokkuñu ca naxnu maachira al anbiyaai laa nuuras maa taraknaahu sadaqa nun yonent yi kenn duñu doon lun fi bàyyi xeet wépp ko bokk suñu doom duñ nu doon kon kon foofu la sharia joxewoon mooy képp ku bàyyi ay doom doom yaa koy doon sunna ñëw ne ah ba mu des yonent yi kon loolu la ñuy tudde taxsiisul am mooy lii ñépp a ko bokk sunna ne ba mu des diw ak diw ak diw ak noo ngi ba tey ci tomb ñaareel bi ñu tuddee leeral gi sunna di leeral alxuraan xam nga bu jëkk ba mooy day ñëw di ko feddli ñaareel bi mooy ñëw di ko leeral leeral gi wax dan ci li ñu tudde bayaanul mujmal wax ci taxsiisul aam ñetteel bi nag mooy taqyidul mutlaq léeg-léeg alxuraan day ñëw tinki dara ne na dem sunna ñëw jàpp ko yeewaan wala bu jàppul lépp yeewit mu jàpp ca lenn yeew yeewaat ko loolu mooy taqyid al mutlaq loolu mooy lan borom bi tabaraka wa ci laay yooyu yi mu doon jàng ñu jàng léegi muy lu jëm ci miraas ci suratu nisa nee na min baadi wasiyatin yuusa biha aw dayn miraas moom yi ñiy jël di ko séddale ñam fa bàyyi moom ma faatu gannaaw buñ ca génnee ndénkaanam ndénkaanam mooy lam waxoon ne su génnee àdduna lii nañ ko génnee ci alalam def ko nangam nañ ma ko mayal diw wala nañ ma ko joxal jàkka ja wala nañ ma ko joxal daara ja kon foofu aaya jooju won na la ne na nit ki sañ na alalam mu jël dénkaane ci lu ko neex na jox daara ja na jox jàkka ja na jox fuqaraaw ya na jox bokk yu jege ya ña nga xam ne duñ doon na ñëw ne ko waaye nag la ngay joxe bu mu weesu sulus foofu lañ koy tënk la ngay dénkaane boobee ngay dénkaane buñ defee sa alal ñetti xaaj fi nga sañe yam mooy benn xaaj ba ñetti million daal nga am bul ne ñaari million yi dañ ma ko yóbbul ca daara ja sunna nee na uhu uh, uh. ndax sa doom yi nga fi bàyyi it soxla nañ dara ñoom it dañoo bëgg dara kon yemal ci benn bi jëlal benn bi leen li nga def ca daara ja la ca des ca eh, eh, jàkka ja ca des fuqaraaw ya la ca des waaye ci benn bi ci nga sañ a yem sulus kon sunna noonu lay leerale alquranul karim tomb ba ca tegu nag ci leeraleen gi moo di ci taxawaayu sunna ci sharia wala ci alquran ba la neexee moo di tawdixul muskil day am mbir yoo xam ne lu jafe-jafe-jafe dégg la ndax dafa làmboo problème ak tànk-tànk la rambo làmboo boo xam ne bu na dikkul woon adduna mën naa tukki ndax nit ñi mën nañoo yanu aw tiis woo xam ne kenn xamul fi ñu koy yanu yani koogu ci àdduna benn laaya dafa wàcc borom bi tabaraka wa taala ne alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun ñi yàlla te ngëm yàlla ak tooñ jaxasoowu ca yàlla nee na ñoo ñooñu am nañ kóolu teg allaaxira te gindiku nañ fii ci àdduna ñi gëm yàlla te ngëm yàlla tooñ jaxasoowu ca ñoo am loolu saxaaba yépp jàq jàq ñi ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nun dey toskare ñeel nanu ndax tooñ mënundu cee mucc lu mu sew sew daal tooñ mënta ñàkk kon day mel ne nun kóoluteg ëllëg goog yi ñuy wax ak gindiku tey gii ñuy wax day mel ne kooku kon du yomb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen du lool de du noonu xanaa déglu déggu leen la luqmaanul xakim waxoon doom ja ne ko yaa bunayya laa tushrik billahi inna shirka la zulmun azim luqumaan dafa waaroon doom ja ne ko sama doom bul bokkaaleeg yàlla kenn bokkaale tooñaange ju màgg la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li leen tooñaange ji suñ borom di wax mooy bokkaale kon alladina amanu ña gëm yàlla walam yalbisu te jaxasewuñ imaanahum seenu ngëm bi zulmin ci bokkaale suñ ko firee woon tooñaange kenn du ca mucc waaye tooñ ga gën a mag lañ wax muy tooñ yàlla kooka mooy bokkaale ki gëm yàlla te ngëm yàlla mucc ci bokkaale kooka mu ngi ci njub tey te dana bokk ci ñiy mucc ëllëg yàlla nu yàlla boole ci ñoo noonu ñëpp kon loolu lu lëjoon la ci saxaaba yi sunna leeral na ko loolu lépp ci ci bayaan bi muy bayaan alquran ci la bokk ñetteelu tomb bi mujj nag muy annawu saalis moo di anna sunna tati bi ahkaamin zaida sunna nag dana ñëw indi ay atte yoo xam ne nekkuñu ci alxuraan lu bees dana ñëw jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk nekkul ci alxuraan mu war jullit yi ñu jàpp ko téye ko ndax buñ fàtte mukk ne alxuraan moo waxoon ne wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu lu mu leen indil jël leen moo waxoon ne wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxin yuuxa lu mu wax rek duy neen lu mu wax wax yu la wu jóge ci suñ borom tabaraka wa taala